ay xibaar yu ay chercheurs occidentaux def xamle ni jàngoro ji ñu duppee cancer du sein moom ci soxna yi nga xam ne der bu ñuul lañu am ñoom la gën a yomba dal loolee nag nekk na lu nga xam ne na lool kuréel gi ñu duppee association nationale des communautés pour la santé ñoom sax wax nañu ne jot na nakkoon ngir gouvernement bu Sénégal xoolaat référence yi nga xam ne ñoom la ñuy utiliser te mu jëm ci xeex jangoro ji ñu cancer. lu ñu am suñu réalité en tant que jigéen nit ku ñuul. dafa am ben spécificité. spécificité si ci Europe yi Europe euh, cancer du sein bi lu ci ëpp c'est hormonodépendant. manam moins agressif que le cancer du sein non hormonodépendant ko qui atteint les femmes sénégalaises africaines pas forcément âgées. VIH sida cancer du sein Pour wala cancer du col de l'utérus ëlum loolu jamono ji askan wi lutax bañu organiser ab journée de dépistage jubluwaay bi moo ñu teel détecter détecté ju ni mel ngir mën ci ar ay doomu aadama. Euh, ñu wara liggé ci walu cancer en tant que ndax té bo fekkee teel nañu dépisté wu xam li nekk si ñoom paj gi dina yomb mom motax ñu walé na yé wax leen ndax dañu war a waxtaan ak ñoom pour ñoom ñu xam nañu war a daw ndax buñ ko xam xamul duñ ko mun daw donc loolu moom moo tax ñu ñëw pour yee leen uh-huh. waaye dépister leen ñi nga xamante ne am nañ ko ñu mën leen a euh, référer euh, au besoin ñi nga xam ne nag seen xam-xam mi ngi jëm ci wàllum pàcc daal di